combat tas yaakaar ordinateur à droite ngembo ngemb xonq li tas yaakaar à gauche ngembo ngemb ñuul arbitre sifflé na génn seen diggante tas yaakaar kii mag la de tas yaakaar kii mag la waxoon ko tas yaakaar kii mag la oh. gone koy dégg waaye maga koy daan tas yaakaar ordinateur daan na la ba jéggi la ngay doog a